waaw président ñu ngi lay nuyu. waaw maa ngi lay fay daam. tey ñu gis tey ngeen woote li nga xam ne mooy mémorial euh, entente centenaire Gibraltar mën nañ xam ne initiative bi lan moo ko waral. waaw donc initiative bi euh, dañ ko def pour ñaanal suñu ay frères suñu ay sœurs suñu ay pap yoo xam ne ñoo nekkoon ci ay bi nekkoon fi ay dirigeants ak ay joueurs entraîneurs ak yooyu bëggoon leen ñaanal. Euh, déjee leen journée bi tey si suba suñu def wàccee kaamin euh, suba am na messe pour catholique yi tam nga xam ne ñëw fi jóge ngoon bi tam ñu invité waa ñëpp pour def retrouvaille waxtaanaale tam euh, indiwaat ay perspective ak ay discussion yoo xam ne dafa jot ñu am ko fii waaw. ñu gis tey mën nañu wax mag ak ndaw góor ak jigéen centenaire ñëpp génn nañ en tant que tey président tey lii lan la def ci yow. waaw fierté la parce que ASC entente centenaire Gibraltar fi mu toll woon ay temps ñu koy dégg fépp ci Sénégal même en dehors Sénégal sax da ko doon dégg chaque année da ngay def soir yu Ndour am ay activités yu bëri nekk équipe boo xam ne moo njëkk a yëngu ci économique association euh, sportive culturelle et économique donc loolu tey bu nekkee suñu ay mbagg day nekk benn fierté boo xam ne dañuy sawar bu baax si jëlee ko niveau boobu yóbbu ko beneen niveau donc retrouvailles yi fi am waxtaan la fàttaliku démb waxtaan tamit si problème yi am tey ak lii nar a ñëw suba ñu xool nuñ koy saafara donc boo xoolee président ASC ancien président yi maam membre fondateur yi ñëpp a ngi fi donc loolu dañ koy rafetlu bu baax. tamit ñu jox leen tamit li nga xam ne mooy ay diplôme mën nañ xam diplôme bi ñan lañ ko jox. waaw ay attestation de reconnaissance la ñuy joxe pour service rendu donc comme ni ma ko waxee sànq rek ñooñu fi jugee tey am na ay président yu fi jugee ay joueurs yu fi jugee bien avant ñuy def. Entente Sanner Gibraltar amoon na fi ñaari équipe yu tuddoon euh, tourbillon ak jëmbët donc ñaari équipe yooyu ñoo fusionné nekk Entente Sanner Gibraltar am na ñoo xam ne si période boobu la ñu doon joué mais benn équipe bi la rek ba tey donc ñu woo leen fii tey seen famille yi pour jox leen diplôme de reconnaissance service rendu donc ay entraîneur ay joueur ay dirigeant waaw gis nañ tamit euh, ay ñaari at a ngi ni nawetaan amul tey gis nañ tamit ñu nekk yi di footballaat ci biir terrain bi tamit euh, gis nañu nañ ay jamono jële ñu ngi doon wax ci waxu terrain bi ki nga xam ne mooy monsieur le maire waxoon na terrain bi dañ ko war a liggéeyaat mën nañ xam liggéey boobu fu mu toll. waaw donc euh, terrain bi bi ñuy signewee contrat bi ba tey parce que signé nañ contrat bi entre ville de Dakar. Euh, commune de la Médina ak ASC bi ba ñu enregistré contrat bi yu domaine ba fay quittance yi fay lépp donc ñun suñu wàll li ñu si waroon def yëpp def nañ ko donc subvention wu ville de Dakar bi 200 millions yi ak 100 millions wu commune de la Médina boobu ba tey dégguñu si dara man tam ma nekk si ay voyage yu bëri nekk si ay yite yu bëri ne woon bu ma ñibbisee rek dina si def lépp li ma mën pour xool fu mu toll parce que ça fait maintenant 9 mois donc boobu ba tey amuñu si ay nouvelles loolu. dañuy bëgg dem si autorités yi nga xam ne ñoom la ñu signé loon contrat bi convention de partenariat bi muy commune de Dakar ak euh, ville de Dakar xam deux cent trois cent millions yooyu ñu doon xaar te signé nañ ko enregistré nañ ko impôt yi domaine fay nañ quittance yi xaalis boobu lan moo ko tere génn bu dee dañ ko annulé ñu wax ñu comme ça ñu xam nu ñuy nu ñuy ñuy taxawee bu dee dina ñëw tam ñu xam ndax mi ngi ñëw bu leerul tam ñu xam fu mu toll pour ñu mën a teg leneen. ban appel ngay def la population centenaire Gibraltar. waaw appel bi may def rek mooy appel à l'union ñu nekk benn parce que am na ay détails yu bëri yoo xam ne waruñu mën a tere atteindre suñu ay objectif waaw wootewuñu pour ñëpp nekk meilleur ami mais nu ñu mën a dund dëkk. gérer suñu cité ensemble donc détails yu bëri ñu tegee ko si ginnaaw ñu xam ni dafa am mission bu ñuy xaar tey benn nga dem sas bi ñu teg sànneer Gibraltar yëpp nekk benn ñu mën a daan suñu ay objectif yu ñu am. mun leen merci président waaw. voilà euh, mi ngi noonu ah lii lañ leen jël si loolu euh, fi nga xam ne mooy euh, centenaire bu Gibraltar tey nag ñu dem def li nga xam ne mooy seen mémorial di fàttaliku ñi nga xam ne mooy seen waay dawde yi nga xam ne ñoo dëkkoona ci quartier bi ñenn ñi nga xam ne tamit ñoo dem jouer ci équipe bi mu ñeen ñi nga xam ne tamit mooy ay ancien président di leen wax rek tamit lii mu doon initiative bu am solo initiative bu baax di leen jox dig daje ba beneen yoon.